ku wérul lu liggéey ba am lu muy jox njabootam ku wérul du jaamu yàlla kon nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla def naa di ci am tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñuy suivre seen seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax di leen fàttali yéen ngi seen programme plante de la semaine plante de la semaine nag comme ni ngeen ko xamee euh, chaque semaine professeur Ousmane Ndiaye dina am euh, benn garab goo xam day sax ci réew mi mu ñëw wax ñu ay njariñam ci wàllum wér-gi-yaram nag parce que garab yi dañuy am njariñ yu baree baree bari mais comme garab gi léppam yàlla rek ko xam te moom comme domaine am faj la ci wàllu wér gu yaram lay ëpp lu muy ñëw léegi léegi tam moom dérivé tuuti ci côté moom lu mu ci xam mu baaxee ñu partagé ko ak ñun voilà mais objectif fi mooy faj. Mhm. professeur garabu lëng tey ginnaaw bañ la nuyoo ziar la moom lañ bëggoon xam maanaam euh, lan mooy ay njariñam ci médecine traditionnelle. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape ñu lay nuyu di la ziare. Mhm. di nuyu mbokku internet yëpp yi nga xamante ni ngi suivre. Mhm. góor ak jigéen mag ndaw. di nuyu ñëpp daal bàyyiwuñu kenn. Euh, keroog nag am na ku ma woo Pape naan ma dee ci boole <laughs> waa Saalum yi. <laughs> <laughs> waaw mais man nag damaa mënul di di xàjjale moo tax dama naan ñëpp rek. ñëpp ñëpp. waa Saalum ci biir waa Saalum ak waa ñëpp ngi ci waa Saalum. waa Casamance ak waa ñëpp daal. parce que boo lumee rek juum. biti biir réew ak biti réew daal bàyyiwul kenn. damay faral di wax ne boo nee maa ngi nuyu góor ak jigéen mag ndaw jeex na. kooku moom mat na. <laughs> Saalum zone bëgg xam-xam. waaw waaw waaw. Mhm. parce que nee na ma dañ dañuy suivre lu bëree bëri bari mhm. donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mhm. donc di nuyu ñëpp Pape Lëng garab la gu bëri njariñ. xanaa di profité waale di wax ni rek képp koo xamante ni émission yaa ngi koy seetaan. loo ci xamit loo ñu mën a baaxee waat rek ñu nga baaxee ñu ko tamit. parce que xam moom du doy. toujours dama koy faral di wax euh, nit moom bu mu rëy. da mhm. wax li mu xam. Mhm. am na keneen koo xam ne leneen ak leneen la ci xam. exemple tey man maa ngi wax lëng exemple wax naa ci li ma xam. Mhm. am na koo xam ne moom am na téeméer yim ci xam te waxuma ko. parce que garabu olof moo mel noonu. da ngay jël benn garab di ci faj lii. kii jël ko di ci faj lee. kii jël ko di faj leneen kii jël ko di ci faj leneen. donc kenn mënta xam lépp. mais nag liñ ci xam lu mu tuuti tuuti rek nañ ko partage. nga ko defee keneen ku xamaat mhm. nga partager rek bu yagge xam-xam xam-xam feñ mhm. bu defee leung baab mhm. baxna ci lu wax sibru sibru paludisme baxna ci nga xamante dañu am problème mu aussi euh buñ amé reen bi eh, diko baxal diko nan momit eh, baxna ci dañu am problème mu ñi nga xam dañuy am jaare maanaam biir biy daw. surtout bu ànd ak deret. moom mhm. bi ñu amee lëng. Mhm. moo xam xob yi la walla reen bi. Mhm. wala xas bi. buñ ci am baax na baxal ko di ko naan. yàlla mën a dindi e, jaare boobu nga xam day ànd ak e, deret. bu fekkee àndut ak deret mais dama wax ni. am biir bi daw rek mën na ko saafara. surtout bu ànd ak tamit. nu koy jël di ko ko utiliser lëng. surtout xob yi wala reen bi. ñi nga xam dañu amee maux de tête bopp bi métti. amee xob yi lëng mhm. euh, moom bi ko baxal di ko naan mhm. yàlla mën na leen a saafara mhm. ñi nga xam ne xay na am doom daf leen a të surtout si jigéen ñi amit taxaw nañu lu yàgg <laughs> amuñu doom xëy na tamit sëy nañ bu yàgg te amuñu doom bu fekkee ci ñoom la ci euh, jigéen ki parce que xam nga émission yi yàgg lañ ko wax nit ki waaw boo ma boo ma boo ma baaroon sax ma def benn. waaw waaw entre euh, parenthèse. entre parenthèse foofu. Mm-hmm. parce que pour wane ni vidéo yi di ma amee njëriñ. Mm-hmm. Eh, keroog dafa am ku ñëw sama clinique. mu ne ma mm-hmm. ginnaaw yàlla. yaa tax ma dem faju ji. na moom dafa yor ñaari jabar. mu ngi sëy normal. pour moom daal problème nekkul ci moom. waaw mais amul doom. nee na mu yaakaaroon ne ci jigéen ñi la quoi. waaw comme liñ doon wax rek comme liñ doon wax eh, nee na première femme am da koo ah. fase ndax loolu ndax amul doom hmm. waaw parce que mais mu takk deuxième femme daf leen yàgg amul doom léegi nag vidéo yi mu seetaan nee na doon def ci azoospermie ak oligospermie hmm. pour wane ni góor mën na sëy hmm. normal te du am doom nee loolu moom moo tax mu dem defi spermogramme ñu doog a xam ne problème ci moom la waaye moom nee na comme que mu ngi doon sëy normal amul benn problème fa jàppoon ne ci jigéen ñi la d'accord donc loolu. ñu bari ah. loolu loolu ko dal. du exception de exception. góor quatre vingt dix neuf pour cent góor yi bu ñu amee jabar amul doom dañ naan ndaw si moom mënta am doom. moo mënta fekk te dañ daw dañoo war ne couple bi ñoo mën a. góor amul amul doom waa kay. xam nga loolu mooy suñu problème ñu Sénégal. ma ci def vidéo yi wax naa ko nee naa toujours dañuy jël toor bi rek teg ko jigéen ki. Mm-hmm. mais nag yàlla baax na ba vidéo yi am na ñu bëri ñu ñu gindi. ñu ci yee ñu ci yee quoi moo tax xam naa ne vidéo yi moom mi ngi am solo ndànk-ndànk xam di hmm. nit ñi dinañ gën a kii la rek waaw mbirum yàlla la ko amul nga dem faju ji rek waaw kay la jarul léegi ñu bëri affaire orgueil moo ciy dugg moo ciy dugg waaw ay soxla bu la yàlla joxee nga yar sa képp laay kàttan mhm. parce que nit am na fi doom dem ba doom ji màgg mu regretté ndax mu am am ko effectivement bari na sax ñu bari regretté nañ seen ay doom yoo am jur nañ leen mhm. ñu réccu sax lu tax ñu jur leen jur leen parce que mel ak li ñu bëggoon mel bokkul moo tax tam yàlla ku nekk da ngay ñaan di faju mhm. te bàyyi ak yàlla. yàlla yàlla mbiru yàlla waaw man ni Pape foofu. ñi mhm. may faj ñëpp loolu laa wax bu ñëwee bu dee affaire doom. Mhm. affaire sperme bi. amul moo am problème wala nangam mu naan la doom moom mbiru yàlla la. Ah, waaye nag nañ sabablu. Ah. bu yàlla ñëwee ñu xam ne loolu la ci yàlla nam parce que xamoo lu ci yàlla nam Euh, couple bi mën na am yàlla dañ ne ñii duñu am doom. voilà waaye yow boo ñëwee ni da foog nga ñu am doom nag. wala mën na heure bii nga koy am. waaw ndax ki ma la bëgg a jox. heure bii la war a wàcc ci planète Terre bi. ok waaw xaaral nga yàkkam di wàccee fi keneen góor te waaye mu mel ni moom a la <laughs> bu ko defee nag. toujours nañu xam ne mbiru yàlla la. Euh, képp ku am jafe-jafe bu ñëwee dañuy taalal loxo ñaan yàlla. yàlla nag mi ngi ci suturaal. Hmm. mais duñ ci mun a assurer kenn. faju la rek ak ñaan mais nit ñi moom la ñu bëgg leen assurer moo tax loolay indi problème bi. yoon yàlla Ibrahima doy na ci exemple. waaw salaam. histoire mm-hmm. am doy na ci exemple. effectivement waaw. donc bu ko defee eh, jigéen ñi nga xamante ni moom mënta am doom. Mm-hmm. su amee eh, xob yi. lëng lëng xob yi wala reen bi. Mm-hmm. di ko baxal di ko naan yàlla mën na ko cee saafara. ñi nga xamante ni dañu am problème mu poitrine dënn buy metti. exemple dënn bi ñu am problème mu dënn di metti lu bari. buñ ñu amee lëng aussi xob bi wala reen bi wala mhm. xas bi bu mhm. baax na mhm. di ko baxal di ko naan yàlla mën na leen na saafara ñi nga xamante tamit dañuy momit buñ xob bi eh, def ko infusion di ko naan yàlla mën na leen a saafara ñi amee ver intestinaux ay saan tamit xob bi baax na ci reen bi baax na ci bu jam baax na momit it bu dee reen bi dañ koy baxal di ko naan yàlla mën na leen ñi nga xamante ni am faiblesse sexuelle bu ñu amee xobi lëng wala reen bi baax na ci waaw bu baax na ci faiblesse sexuelle ñi nga xamante ni dañoo amee anémie xam ne dañoo manqué deret boobaa reen bi la ñuy jël ñoom baxal ko di ko naan reenu lëng ñi nga xamante ne xëy na am nañ problème épilepsie am di daanu ay crise wala yu demee noonu ñu ko waxee toujours moom it bu reen bi baxal ko diko naan yalla mëna leen ko saafaraal mm-hmm. ñi nga xamé ni dañu amé estomac estomac mo d'estomac hmm momit bu ñu amee xob bi mm-hmm. eh, yàlla mën na leen safara hmm bu baax inshallah hmm ñi nga xamé tamit tamit dañoo amee hypotension mm-hmm. tension buy wàcc tension bi wacc du bari uh-huh. la muy wàcc daal eh, bu amee xob bi eh, diko naan yalla mëna na ci cee safara hmm ñi nga xamante ni tamit dañu amee mal de dos ginnaaw guy metti mhm. ginnaaw guy metti bu ñu amee xas bi mhm. wala ñu am reen bi buñ ci am mhm. baax na euh, di ko utiliser di ko naan yàlla mën na leen defal saafara ci loolu d'accord ñi nga xam tamit dañu amee bronchite bronchite oh. waaw nañ ci kii bi rek bu ñu amee bu ñu amee xob bi wala reen bi di ko jël yàlla mën na leen a saafara ñi nga xamante ni dañuy dañuy bori waaw seen bakkan yi dañuy naaj moom it bu ñu amee xobu lëng mhm. euh, baxal ko def ci mhm. xorom mhm. Euh, di ko suuroo noonu di ko ah, sarxndikoo ah. tamit mën na mën na mën na mën na daj waaw lëng xobu lëng nga baxal ko bul xorom def ko ci di ko sarxndikoo noonu ñi nga xam ne dañu bëgg bu ñuy am doom yàlla defal leen mucc ci jàmm ak salaam maanaam mu yomb mu yomb waa kay bu ñuy accoucher mu yomb ñamit buñ amé xob leung bi mhm. ak xobi xoss mën mhm. nañ ko bolé mhm. def ko infusion ba nek en terme ba ñu sen 8 e mois commencé diko ko wala buñ ñu sen 9e mois commencé diko ko yalla mën na def bu ñuy accoucher bu indi yene jafé jafé yu mel mën na ko yombal quoi ñi nga dañuy point de côté parfois point de côté wala douleur de côté moo xam côté ndeyjoor la wala côté càmmoñ parfois di metti mhm. bu ñu amee xasu lëng mhm. wala xob yi di ko naan mhm. yàlla mën na cee def saafara donc yooyu daal la ñu indi woon ci lëng ci yoo xamante ni moom mën na ko saafara ci garab gi macha allah am na solo. te xam naa ñu bala ñu koy tëj ñu laaj la si dosage yi quoi nit ñi nan ko mën a jëfandikoo dose waa waaw dose yi moom comme ni ñu koy faral di waxee rek. parce que garab yu bëri. du nekk garab yu weex mm-hmm. donc bu fekkente ne da nga koy baxal mm-hmm. muy reen bi wala xas bi mm-hmm. dañ ci wut lu yam bu dee reen bi ñaar ba ñett bant baax na c'est-à-dire buñ nekk mooy comme ñuy jaay rek exemple nga am ci ñaar ñett def ko un soo ci defee genn wàll soo ci defee litre ndox baxal ko mu ngi ci naan kaasu ataaya ak genn wàll wala kaasu ataaya rek suba ak ngoon deux fois par jour baax na su dee xob yi boo ci wutee lu yam maanaam benn ngëb bu yem mhm. bu fekkee ci liitaru ndox nga ko baxal mhm. nga ko def infusion mhm. nga moom mën nga ci daan digg kaas bi ñu ndekkee um digg koy naan suba ak ngoon suba ak ngoon yoon ba ñett yoon mën a nekk bu dee xob yi la d'accord mais bu dee reen bi moom ñaari yoon yi baax na suba ngoon bi baax na d'accord mais bu dee xob yi mu ngi ci daan diggi kaas mais mu nga ci daan ñetti yoon d'accord suba midi ngoon ak ngoon incha allah d' accord diire yi nag am na comme boo ko naanee semaine wala quinze jours. wala weer waaw ça dépend ci nit ki lim ciy faju rek. ça mhm. dépend bu fekkee yenn feebar yi la. Mhm. mën na mën na yàgg mën nañu ko naan un mois doog arrêté. Mhm. mais bu fekkente ni ay prévention yooyu mën a jël quinze cinq jours le dix jours une semaine. arrêté toogaat quelque temps utiliser. Ah, mais bu fekkee rek dangay faju moom. feebar bi dañu. waaw mën nga continuer di ko continuer di naan moom loolu leer la kon yaakaar naa <laughs> mën nañ la bàyyi nga tàggatoo mais yaakaar naa macha allah <laughs> <laughs> leer na. Hmm. Hmm. danga waaw waaw bu ko defee pap kon lëng mi ngi noonu garab la bu bari njëriñ. Hmm. loo xamante ni surtout ci wàllu sëqat moom. Eh, ko ci man bariwul. moom baax na ci wàllu sëqat wàllu bronchite xob yi. baax na ci lool am na ñoo xam ne mag ñi xam nañ ko ñu bari dañ koy jaxasee sax xasu looro wala yu demee noonu. wala bu dee Fatick maa nga boole ko xasu looro. yu demee noonu wut la xasu wén hmm. donc yooyu baax na bu ko defee nag jar na di utiliser lu bari d'accord donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp hmm. leen jox dig daje beneen vidéo wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum wasalaam wa rahmatullah